mbokk yi jàngeen ngeen euh, jëf jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak euh, Walf TV la voix des sans voix daleen ak jàmm ci l' édition du soir euh, daje tey ji ak altine 1er février ci atum 2021 tey ci ngoon moom maam Khady Dieye Fall la ñu àndal ci présentation seen magazine bile maam Khady maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi lay fay Moustapha Diop. ni ñu koy defee bés bu nekk dinañ xool li nga xam ne moo gën a fës ñu gën ko waxtaane ci site internet yi wala ci réseaux sociaux yi ñu tegaat ko ci taabal ji waxtaane ko ana luñ tànn nar ko waxtaane tey tey liñ tànn nar ko waxtaane di déclaration de patrimoine bu ki nga xamante ne bi moo di sa Seck daal di mhm. def Moustapha ah, ñu daal di ci jot a wax ne ah, jotuñu xayma carrément mais jot nañu wax ne toog na wax na ci ñaata la toog waxu ko waaye nee nañ plusieurs mhm. daal lañ wax donc plusieurs lan nag euh, xaalis daal ay ah, xaalis doy na waa dinañ ci ñëw bu ci kanam ak jàmm lay doon coow nag si ci ci net bi ak yu bëri ñu ci jot a euh, noonu lay demee buñ àggee ci catal l'édition du soir balay boobu dañuy ànd ak suñu gan euh, tey ñu war a waxtaane école ak euh, jàngalekat yi ak ña fay jàng kiñ ci dalal tey bokk ci nga xam ne ñooy les acteurs majeurs de l'école ndaxte mi ngi bokk ci G7 muy kuréel gi nga xam ne moom moo boole syndicat yi gën a mag ci mbirum enseignement waaye tamit jiite syndicat bile di SAEMS Daourou Sène maa lay nuyu. mais maa lay fay Moustapha di nuyu Soxna Khady euh, di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan fii ci Walf TV. Hmm. alors yaay euh, secrétaire généralu SAEMS moom boobu boobule euh, ñu gis ne fan yee ci ginnaaw amaloon ngeen benn tournée jëmale ko ci li ñu mën a tuddee la partie nord bëj gànnaaru réew mi. dem ngeen Saint-Louis dem ngeen Louga d'abord lan moo taxoon tournée boobu ci contexte bi ñu nekk. waaw euh, fàttali rek euh, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire euh, ginnaaw bi ma nuyoo jàngalekat yëpp yu ñuy suivre def di un syndicat de terrain c'est-à-dire ñun gëmuñu que syndicalisme mooy toog bureau rek wala nekk à la télé wala à la rajo di wax mhm. il faudrait que nga dem ci collègues yi xam situation ban la ñu nekk et à partir de ce moment nga mun a apprécier boo jàkkaarloo gouvernement Sénégal nga mun ko wax li nga xam ne da nga ko gis sur le terrain mhm. euh, te def di nag une tradition au niveau du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire euh, tournée boobu c'est une tournée nationale commencé nañ dem nañu région de Louga tous les départements de Louga dem région de Saint-Louis tous les départements de Saint-Louis mais comme ni nga ko waxee tournée bi dafa nekk ci moment boo xam ne c'est un moment tout à fait particulier Absolument. moment wu mbas mi euh, ba tax na à chaque fois bu ñu yegsee dans une localité dans une école mais li ñuy njëkk xool ndax le protocole sanitaire et respecté mm-hmm. est-ce que fii am nañ motuwaay yoo xam ne jël nañ ko pour que ñu mettre ces élèves ces enseignants le mm-hmm. personnel administratif et dans une situation de sécurité hmm. hélas bon euh, il faut ñu wax ko Euh, à l'intérieur du pays boo xoolee dans la région du Louga justement à l'intérieur du pays le constat mooy lan oui le constat mooy que mais le protocole sanitaire ci fu bëri quand même respecté wuñ ko respecté wuñ ko euh, lenn rek loo loo xam ne mën nañ ci jàpp gis ko mooy que xëj na ay masque joxe nañ ko wanne nag dañ wax ni école bi boo yegsee da nga war a fekk lavoir foo xam ne xale yi bu ñu ñëwee foofu la ñuy raxas seen loxo voilà soo ko dugg euh, dañuy wax ni aussi il faut mu am ay gel hydroalcoolique il faudrait que ñu ñu ñu fexe aussi respecter la distanciation physique mais loolu yëpp quand même quoi qu'on na moo taxoon ma ne il faudrait que école bi bénéficier d'une certaine solidarité nationale mmh. quand je parle de solidarité nationale mais j'interpelle aussi bien le ministère de l'éducation le gouvernement bien sûr les collectivités locales parce que l'école est d'abord l'école de la localité mais les mécènes les entreprises loolu moo tax ñu jàpp ni en tout dans cette situation de pandémie encore que comme ni ngeen ko gisee deuxième vague bi dafa gën a demee ci ci région jotee mhm. tey bu ñëpp andi woon saabu andi gel andi lu ñu raxasoo mhm. xëy na dinañu mën a wàcce état bi ci lu bari mhm. mais li nga xam ne moo moom la état bi responsabilité am quand mooy fexe ba distanciation sociale am ci biir l'école yi est-ce que le constat des faits sur le terrain permet aujourd'hui tey ñu wax ne xale yi ñu ngi mayante distance pour dire vrai non non sincèrement non mënul nekk xam nga lu ko lu ko waral euh, d'abord nous avons quand même dans nos écoles des effectifs pléthoriques absolument xam nga boo demee dans une salle de nga fekk trois à quatre élèves ñu toog sur une table banc ko kenn mënu fa wax distanciation physique non, donc loolu am na euh, gis naa aussi euh, parce que dama tombé sur une scène le premier lundi bu ma déparé mhm. euh, bu ma yegg si région de Louga euh, non non région de Saint-Louis mhm. yegg si Mboumba le matin ma tombé juste avec une foule d'élèves mhm. ñëpp compact ñu ne dañuy marche parce qu'ils avaient besoin d'enseignants manque déficit d'enseignants dama taxaw foofu wàcc d'ailleurs mhm. euh, bu ma ñëwee en réunion d'évaluation sax certains du certains membres du SP ñu ngi ma doon reprocher mhm. comment se fait-il que dans une situation de pandémie ma gis ful bu mool mel noonu daal di wàcc seen biir et parce que je voulais savoir de quoi il s'agit te mhm. sur le champ quand même là au ministre de l'éducation ma ne que bon mais je suis boo xam ne ça vous interpelle directement j'ai même pas appelé l'IA même reconnu fii en Moumba les élèves me parlent de déficit d'enseignants élèves yi ci seen bopp sur mon téléphone crier le les enseignants ministre oui oui ministre oui oui mu ngi dégg. et hmm. pour dire vrai aussi le ministre automatiquement a réagi. parce que dafa ma ni EG léegi d'ici euh, cinq à dix minutes je vais vous revenir il a automatiquement appelé l'inspection d'académie ñu ne ñu on envoie déjà des des des sortants de la FASTEF ils ont reçu leur OS le soir j'ai vérifié j'ai effectivement vu que y a des enseignants qui sont arrivés mais. li ma hmm. bëggoon rek mooy gis nga pandémie bi. Hmm. qu'on prenne encore plus du sérieux au niveau de l'école gis nga sérieux boobu mhm. bu bu bu amul au regard du fait que école dafa nekk un lieu de concentration du fait que école aussi xale yi dañuy dugg ci bis yi di yegsi ak situation bi ñu nekk gis nga matuwaay yu ñu war a jël il faudrait que ñëpp jàpp ni état wu Sénégal war na gën a mën a sécuriser l'école war na gën a mën a investir. au niveau su ma la déggee mooy sécuriser l'école manqué na. non manqué na parce que te te c'est-à-dire euh, xam nga euh, doon wax sur un plateau mais de la façon de communiquer sur la pandémie fait que finalement c'est une certaine monotonie qui fait que peut-être ñenn ñi sax euh, bon pour ñoom c'est au quotidien on le dit voilà on le dit mm-hmm. alors qu'en réalité quand même c'est une situation d'une extrême gravité moo tax encore pendant qu'il est temps dañu alerter gis nga l'école encore c'est pas que parce que je suis un acteur de l'école mm-hmm. ah nation sénégalaise a de faire c'est-à-dire les enfants de la République d'accord euh, mais à partir de ce moment il faudrait que il faudrait que ñu encadre leen euh, est-ce que gisoo ne béy way na mbuus ecole yi ubbi nañ élèves yi te am na si sax ñenn ñu nga xamante ne bii ñu ngi jàpp ne euh, ubbiteeg lekkool bi bokk na si li gën a tax ba mbas bi gën a yëkkati non non au contraire béy wéyagul mbuus parce que quoi qu'on dise aussi la situation de la pandémie en ce qui concerne ñu ñu contaminé bëri nañ mm-hmm. mais ñu ngi toucher du bois pour le moment il y en a bien sûr des contaminés à l'école comme dans tous les autres secteurs wante nag tolloogul foofu comme nag ñu ngi jël nañ vacances déjà mhm. ma ne le moment ci vacances yi ñu dal di fexe ba mais balaa ñuy retourner dans les écoles ñu désinfecté waat école yépp xool aussi comment réorganiser mais les enseignements apprentissage en quoi faisant par exemple mais xam nga mbas mi euh, problème de contact la nañu limiter les contacts et c'est possible qu'est-ce qu'il faut faire c'est possible dans nos écoles non écoute quest que moi je considère une chose gis nga classe bi fu mu nekkee cent élèves ñooñu il faut ñu xam ni tey dans la situation actuelle le double flux s'impose à eux cinquante yi ñëw le matin mhm. cinquante yi ñëw le soir nañu réorganiser wu beneen aspect bi mooy élève bi fu mu doon ñëwee le matin huit heures wàcc midi wala 13 heures ñibbi ñëwaat quinze h je crois que yooyu aussi il faut qu'on qu'on qu'on réorganise en instaurant de force mais la journée continue bien sur que bu ñu waxee euh, double flux wax aussi journée continue ñenn ñi dañuy gis ni élèves yi dina am ay heures yu ñu perdre waroon ko jàng mais je rappelle que bu ñu nekkee dans une situation d'exception ou dans une situation d'une telle gravité kenn mënul wax ni da nga fay am li gën la fa sës nga mën a am à partir de ce moment je crois mm. qu'aujourd'hui il faudrait que nous réorganiser wu que ni ñu doon defee les enseignements apprentissage mais ñu changer ko Saourou Sène est-ce que le le, le SAEMS e ak yeneen syndicats yi nekk ci G7 rek am courage yu demander mm. ñu suspendre cours yi peut-être deux trois semaines quatre semaines le temps que mbir mi dal tuuti. sauf que une euh, leçon doit toujours servir à quelque chose. xam nga bi ñu suspendre les cours bi pandémie bi yegsee le 14 mars le chef de l'État mu def discours. Mhm. dal di suspendre fermer toutes les écoles. mais pour man. Mhm. loolu xëy na mbas mi daa yegsee rek on n'a pas trouvé de solution ñu ne comme xamaguñu naka la. nañ dal di tey pour moi c'est pas la solution vous savez pourquoi parce que bi ñuy reprendre les ngi fi woon. et donc loolu oui oui oui oui oui mais loolu c'est-à-dire dama bëgg a wax ni mhm. c'est la solution la plus facile mais c'est pas la meilleure solution pour l'école la meilleure solution pour l'école c'est d'abord que l'école warul manquer gel mhm. école warul manquer euh, comment on appelle ça des masques école aussi war nañu fexe comme am nañu des effectifs pléthoriques ñu système qui fait que élèves yi yëpp du ñu dajaloo gis nga système boobu buñ ko amoon avec une administration très rigoureuse xëy na yàlla mën nañu suturaal ci mbiru ah. la wante naan ñu tëj école yi pour man yow du solution la plus facile ni tëj ni suspendre cours non sauf que sauf que maintenant comme je l'ai mhm. mais comme am nañ vacances ni xëy huit jours mhm. mais dinañu jox une idée de sur l'évolution de la pandémie parce que bu ñu amee huit jours de vacances mhm. ñëpp gis ni après mbas mi wàññeeku na carrément mhm. mais man nañ indexé l'école ne attention mhm. kon est-ce que ñu xool trois semaines ou quatre wala un mois pour xool quelle est la tendance Donc, mais mais mais durant ces huit jours là bu dee lu bëri changé wul ñu xam ni loolu du école il faudrait tout simplement que ñu xool ailleurs en attendant l'école c'est un élément d'un ensemble oui. de la, la ci marché yi xew feneen ak feneen l'école am na des cas de Covid dans l'école am na sax ñu ne am na enseignant yu ci wala boog enseignant bu ci ñàkk bakkanam mhm. boo defee tournée euh, Saourou Sène wër Sénégal ba ñëw mhm. lan ngay dégg des enseignants rassurés ou bien des enseignants yoo xam ne bëgg nañ def seen métier mais ils ont quand même peur parce que y a Covid gis nga euh, euh, pour dire vrai mhm. ci fi ma jaar yëpp en général et heureusement pour nous peut-être à l'intérieur du pays nit ñi ñun psychose bu ñu am ci mbas mi amaguñ ko. Mhm. ça c'est une réalité man damay ñëw sax commencer par le discours sur la pandémie pour woon jàngalekat yi l'école doit toujours donner l'exemple. Mhm. École dafa war di joxe le ton mais. je sens que xaj na ñun yu ñu ci am ak liñ ci sentir a partir de Dakar peut-être ñun fu ñu jaaragun ni ñi sentir wuñ ko noonu parce que aussi mbas mi euh, mais c'est surtout Dakar moo taxoon d'ailleurs ma ne gis nga même si on am ne à fermer si on am ne à fermer l'école dama ne il faut ñu am une approche mais mais mais géographique de la situation maanaam li xewoon bu njëkk ñëw rek ne mbas mi am na nga fermer fépp alors que fekk ni Ziguinchor Matam Tamba mbas mi yeggu fo mais nga empêcher xale yooyu ñu jàng alors que xale yi am problème mooy xale yi Dakar pour man loolu aussi je crois que c'est à revoir à partir de ce moment tey tey tey c'est une situation de fermeture s'imposer nañu commencer d'abord par la région de Dakar la région de Thiès un peu Kaolack et Diourbel tout en laissant le reste à fonctionner d'autant plus que nous avons des académies et je crois que loolu lu war a mën a nekk la wan day encore une fois de plus pour wax dëgg mhm. situation bi nii ñu ko gisee ak augmentation de taux yi tout ça ku mu inquiété wul mais dara mënul la inquiété. Mhm. Mhm. man justement li mu wax lay rebondir mooy comme proposition li nga wax ni. Mhm. Euh, fermer Dakar Thiès ak yooyu est-ce que loolu bu amee tamit du am benn euh, ñàkk ànd si élèves yi ñenn ñi ñii duñ jàng ñii di jàng est-ce que du indiwaat beneen problème. mais justement sauf que bu ñu ferme woon Dakar je dis pas qu'on doit fermer tout de dama ne bu ñu waroon yegg ci situation yooyu. xëy na ñu jël yooyu mesure. wax ah, ne nag gis nga daaw bu ñuy xam nga dañuy wax ni on va prendre le e-learning comme mode d'enseignement mais opportunité technique et technologique yu ñu am dans la région de Dakar avec le e-learning amuñu ko en Matam par exemple oui ce qui fait que dans une région comme Dakar mm-hmm. dans une dans une ville comme Dakar ville comme Thiès ville comme Kaolack par exemple mais le e-learning peut bel et bien fonctionner dans les écoles comparé au reste mm-hmm. du Sénégal et pour l'intérieur loolu moo tax aussi eh yàlla xëj na moo xam li tax mu def mbas mi gën a concentré wu dans les centres urbains mais par rapport au e-learning un système d'apprentissage comme celui-là mais bien sûr que Dakar niñ ci mën a génne ak Saint-Louis ak euh, non comment dirais-je Thiès ak yooyu mënuñu ko génne à l'intérieur ce qui fait que ñi mën nañu fonctionner par le e-learning et le reste du pays fonctionne correctement SAEM sa syndicat bi nga jiite bokkoon na ci ñi nga xam ne euh, accompagné woon nañ la reprise des cours euh, ginnaaw bañ ko boo ko président Macky Sall doon euh, ñëw sànq gis nañ reprise bi ni mu demee ak euh, jafe-jafe ci enseignants yi après mm-hmm. des mois pratiquement un an après mm-hmm. ban sentiment mooy animé Saourou Sène est-ce que quelque part amul une responsabilité par rapport à ce qui s'est passé mais tout à fait et, nous l'assumons encore gis nga euh, daaw mm-hmm. bi gouvernement au Sénégal waxee que dañuy reprendre les enseignements apprentissage avec les classes d'examen dañu mesurer d'abord de quoi il s'agit bu ñu jëlee les classes d'examen c'est cinq cent cinquante et mille élèves sur 4 millions et quelques élèves ñu ne c'est raisonnable parce que salle de classe yu ñu am s'il ne s'agit que des 551 000 élèves war nañu mën a reprendre tout en respectant la distanciation physique premier élément le deuxième élément mooy que euh, ñun nag nous sommes des agents de l'État comme tous les agents de l'État oui te gisoon nañ ñenn ñi commencé di ñu ŋaññi di wax ni voilà jàngalekat yi toog nañ février mars avril mai ñu leen di fay salaire contribuable te defuñu dara te pourtant bi jàngalekat yi toogee parce que kiy tijji école yi moo tëjoon école yi ñu toog waaye wax boobu dégg nañ ko ane nag bu ñu déggee gouvernement bi jël décision pour faire reprendre les cours dama jël wax ci turu syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire hmm. wax ni d'accord nañu parce que mënuñu gën a nekk moins patriote que les médecins du Sénégal yi nga xam ne chaque jour dañuy affronter la maladie c'est des citoyens sénégalais comme nous hmm. agents de l'État comme nous bëgg Sénégal comme nu ñu bëgg Sénégal ma gis ni aussi pendant le couvre-feu les forces de défense et de sécurité ñu ngi woon ci biti ci guddi pendant que ñun ñu toog suñuy kër ñooñu c'est des citoyens comme ñun ñu nekk ay parti kon état wu Sénégal dans la situation de d'aujourd'hui bu taxawee wax ni jàngalekat yi dama bëgg ñu dellu ci seen classe ñun jàngalekat yi ñu ne état ñun jàng ak njàngale mooy suñu métier loolu la ñu bëgg. loolu moo taxoon ñu jóg dem jàngale te gis nañ aussi le résultat parce que nag lenn loo xam ne tiré nañ ko ci li nga xam ne def nañ ko mooy un taux d'encadrement très rapproché qui a permis au Sénégal mais d'avoir des résultats yoo xam ne. ça faisait longtemps amuñu ko mais am na ci ay manquements. les manquements d' abord c' le convoyage des enseignants. loolu amoon na une désorganisation il faut qu'on ait le courage de le dire mmh. et pourtant aussi en tant qu'organisation syndicale balaa désorganisation boobu doon am fii au rond-point liberté 6 moi liberté 5 mmh. man personnellement je suis allé dire ça au ministre de monsieur le ministre mais ngoon lii waaj a xew au rond-point c'est des choses qu'on qu'on pouvait éviter mm-hmm. pourquoi parce que boo jëlee académie wu Thiès nu mu toll nga boole ci académie Diourbel ne leen yéen ñëpp 15 heures convoqué naa leen au niveau du rond-point Liberté 5 mais naturellement au regard de l'espace mais day am pëcc xaw. d'autant plus que ñu bëri xamuñu woon est-ce qu'ils vont partir wala duñu. wax nga wax nga lu danga wax benn moo mhm. muy patriotisme. Mhm. donc mënuñu xaar yéen euh, ren jii nii ngeen tegandi ci suñu grève vu. Euh, loolu du bokk nag yow yow yow xëj na xëj nag mhm. quand même. tout le monde sait. depuis les ouvertures et puis d'ailleurs du ma sori sax ci ouverture hmm. naa jël rek le de l'avant-dernier communiqué du conseil des ministres où le président de la république reconnaît quand même que euh, monitoring des accords dañ ko war a reprendre oui. parce que ces accords qui datent de 2018 am ci ay poñ yoo xam ne avril 2018 non oui avril le 30 avril 2018 mhm. am ci ay poñ yoo xam ne quand même ba léegi kenn yeeyu ci yàbbi ak un président du monitoring koo xam ne ñun mënuñu ko gis. kan mooy euh, président président monitoring c'est le docteur Cheikh Kanté docteur Cheikh Kanté docteur Cheikh Kanté. Hmm. donc bu dee respecté nañ quand même yi nga xam ne ñoom ñoo ko xaatim ak ñun je crois que quand même dañu war a comprendre cette nécessité mais de reprendre les activités du monitoring euh, euh, gis nga mbas mi bu mu yegsee je le rappelle et puis les sénégalais en particulier la presse sénégalaise. Hmm. dafa am benn fait bu ñu fàtte. nous nous sommes le la sol corps je dis bien mbas mi bu mu yegsee ñun ñoo njëkk imagine la création d'un fonds de lutte contre la Covid 19. jàngalekat yi kese te pourtant moment boobu ñu créer sa fonds la boo fekk ne état au Sénégal yoral nañu environ cent milliards de rappel mais ñu ne comme mbas ñëw na dal na suñu réew kenn du ñu gën a patriote nañu jël ci lu ndaw lu ñu am ñu boole ko jox ko état au Sénégal am ci dix millions yu teg donte bëriwul sa symbolique. mais quand même c'est notre participation beneen aspect bi mooy mbas moom bu mu yegg seen lañ ni comme situation ñëw na nañu teggandi ci suuf bépp xeex donte c'est des accords signés et à respecté mais boobu ba léegi quand gouvernement bi. Eh, defu ci am am na ñu ne euh, dans le cadre de la lutte pour la matérialisation la matérialisation de ces accords du avril mhm. am na ñu ne euh, dégg vous avez rendu les armes quoi cest à le G7 ne se bat plus. non gis nga euh, aussi il faut ñu comprendre leen aussi. Mhm. moi j'ai toujours cette phrase là. la pertinence de toute chose quand même dépend de son opportunité. Mhm. dans la situation de Covid. ak li xew nii ñëpp di wax question de santé hmm. dafay jafe ñu mobiliser ay jàngalekat pour grève pour un fait ou pour un autre loolu kese la hmm. wande nag gouvernement au Sénégal xam na bu baax a baax hmm. ñim ko seqal nous sommes aussi responsables aussi engagés que tout enseignant qui ferait une critique par rapport à un immobilisme non et d'ailleurs cette tournée bi ñu def nii mais c'est pour aller dire aux enseignants attention donc démbassement ngi parce que les enseignants ont quelque part le, sentiment d'être je, par je le G7 gisuñu leen dégguñu leen pendant tout ce temps là non non non non oui. justement ñu ngi ñuy dégg ñu ngi ñuy gis d'ailleurs tournée bi ñu jóge nii wane na ko et je continue inchallah oui oui oui pour leur dire que camarades situation bi métti na trop et encore mhm. beneen aspect surtout foofu dama ciy insister il y a deux ministères qui nous fatiguent ah c'est le ministère de la fonction le ministère de l'économie des finances ministère de la fonction publique moo yore signature acte d'avancement d'intégration de validation c'est vrai c'est des lenteurs d'une extrême gravité te dafa continuer et le ministre mënuñu ko teg bët donte boo waxee ñu ne la mbas mi la mhm. mais mbas mi lu mu am am am la technique et la technologie doit non je crois que boo doole rek mhm. la technique et la technologie permet au ministère de travailler correctement loolu manqué na am na liggéey liggéeyuñu je hmm. suis désolé de le dire comme ça beneen aspect et boo demee sur le terrain tu le sens. Hmm. beneen aspect bi ministère des finances mi war a génn non seulement loolu mais question bi nga xam ne moo concerne le système de rémunération des agents de l'État laquelle question président de la République def ni vous avez raison. Mm parce que nag ni ñu tabaxee système payor bi baaxul on ne peut pas avoir une fonction publique où les gens se regardent en chien de faïence mmh. les uns accusant les autres d'être mieux payés ou d'être mal payés oui. et il dit à son premier ministre les enseignants ont raison il faut qu'on corrige mais c'est ce qu'on attend d'eux et ensuite même sur cette question du système de rémunération mais laaj na ay waxtaan ay waxtaan yu xóot entre ñun ak lu gouvernement du Sénégal te loolu système du du monitoring des accords bu amoon xëj na waxtaan boobu balaa mbas mi di jeex wala boobu mbas mi bu jeexee dina jur lenn loo xam ne pour le Sénégal et et puis ce pour les enseignants. Hmm. c'est pour toute la fonction publique sénégalaise. D'accord. ensuite mais yooyu yëpp bu tegee. Hmm. ba pare nga ngeen am un système d'impôt boo xam ne mais tout le monde reconnaît quand même que amoon na jamono boo xam ne te loolu sax. quoi kon dise mu ngi fi ba léegi. Mhm. ay impôts yoo xam ne personne ne peut les ex ne peut les expliquer. bu ñu la joxee un rappel de 3 millions d' environ da ngay gis sur le bulletin de salaire. ñu def ci impôt yoo xam daanaka que le brut le brut c' est millions. mais li nga fay ci impôt c' est 1 million 500 1 million 800. mais loolu def di des situations yoo xam ne ñu ko nangu. moo tax ma jàpp ni encore li ñu waxoon conseil des ministres. Mhm. pour la reprise des activités du monitoring. un gouvernement responsable irait droit vers ça. malgré le Covid. avec les les euh, organisations. ñu wax directement ci congrès wu euh, SAEM je crois en deux mille vingt deux oui avant ñuy jeexal parce que waxtu waxtu mi ngi. deux mille vingt deux mu euh, ci la si ci la normalement sa mandat war a jeex da ngaa fas yéene incha allah da ngaa fas yéene toogaat wala dangay def comme politicien. déedéet suñu syndicat. Mhm. d' li nekk particularité SAEM. Mmh. C'est la démocratie du SAEMS. Le respect de nos textes statutaires et réglementaires. Mhm, le premier secretaire général, c'est Mbaye Faye. Il mhm. fut un grand et excellent secrétaire général. Mhm. Mais bu mu deux mandats dañ ko ni grand merci beaucoup. le deuxième secrétaire général xam ngeen ko c'est Mamadou Lamine Dianté il fut un grand syndicaliste au lycée malgré tout mu paree ces deux mandats dañ ko ni grand merci gis nga man sawru incha allah en septembre 2022 buñ ci yàlla yóbboo jàmm ni ñooñu def je ne ferai pas moins que ça et et et moi je fais partie de ceux qui disent d'ailleurs mm-hmm. que c'est manquer d'ambition que de vouloir rester à la tête d'un syndicat pendant plus de six ans c'est un manque pour terminer ah, rapidement parce que dañuy dem si la rubrique euh, vue du net euh, est-ce que tey vous n'avez pas le sentiment est-ce que yaakaaru leen Euh, euh, ci Covid beeg euh, école yeeg jafe-jafe yi mu jur le fait que duñ leen di dégg souvent le SAEMS ak les syndicats du G7 ngi per de terrain quand oui gis nga et encore que. en attendant les élections qui vont gis nga li nga wax dafa am parce que non seulement cette conception mën nañ ko am. Mhm. mais dafa am ñoo xam ne ils font de l'opposition syndicale ils sont partout dans les radios dans les presses lu ñor ñu wax lu ñorul ñu wax encore que li ñuy wax très souvent sax ça ne correspond à la vérité. je prends l'exemple de la situation avec euh, la sexualité l'atelier oui. qui s'est tenu oui. on nous dit oui dañ ñu ne wala dem nañu sali wala UNESCO jox nañu de l'argent moo tax euh, li UNESCO bëggoon dugal ñun ñëpp on était d'accord mais dama toog ma ne gis nga hmm. billaay nag nañ ko wax pour la vérité yow mal xëyaam yàlla bu ñu balu day métti trop parce que musulman ne ment pas jullit dangay wax dëgg Moi, Saourou Sen, je n'ai jamais vu un gars de l'UNESCO. Jamais. Et pour cet atelier d'ailleurs, puisque le libellé de l'atelier dit mm. la santé de la reproduction dans nos programmes, j'ai désigné la vice-présidente de la Convention nationale des femmes pour représenter nous. Et je sais qu'il a reçu pour son transport 12 500 francs. 12 <laughs> 500 voilà. <laughs> alors très rapidement la rubrique. ah non non non ñooñu amuñu euh, jot pour wetti leen quand même amuñu jot boobu. aywa am di ñu seeti Vidinette ak Mame Khady Mame Khady euh, Diéry Fall ñu kon waxtaanee ngoor soosu Idrissa Seck jiite conseil économique social et environnemental ñu wax ne ni ku ko loi santé tey def na ko euh, déclaré na patrimoine am wax ne lii mooy koppar yi nga xam ne moom la am jur nag ay commentaires yu bari ci internet ni nga ko waxee noonu la amee ki nga xamante ne bi mooy euh, Idrissa Seck def na déclaration wu patrimoine am donte sax joxewuñu ci xayma exactement ñaata la toll am na ñu naan plusieurs milliards am ñu naan mais daal euh, joxe na ko li leen ak jot a juraay commentaire ci net bi ñu joxe sax bile xibaar mooy Walf mooy groupe euh, Walfadjri ñoo ko daal di joxe. ñu waaw ñu ñu mhm. ñëw ci commentaire bu njëkk bi euh, kii moom dane waa léegi ñaata la patrimoine bi dañoo bëgg a xam nan la toll comme que xam naa ni du soow dong te na wax mburu tamit mu def mu déclaré bosam kii lii la mooy commentaire am keneen beneen commentaire lii ay commentaires yu bëri la Moustapha Ali Wade moom dane euh, fi ne ñii duñ wax duñ mës a wax euh, ñaata la xaalis bi tollu mm-hmm. euh, tey tamit déclaration de patrimoine yi ñuy def rek ce n'est que du sëlëm lëndëm moom loolu la wax mu ne juste rek pour sëlëm xelu sénégalais sénégalais yi la mm-hmm. tey tamit du am benn trasabilité Mouhamed Anne Lali moom mu ne Idri moom Idi contrairement à ce que beaucoup pensent moom nee dafa am agenda bu organisé te tamit dafa wax objectif am mooy euh, dem euh, li nga xamante ne bi mooy euh, présidence de la république dem foofule donc day liggéey et tout ça donc jarul muy wane yenn yi nii donc lu mu def rek c'est parce que c'est programme kii Mansour Samba moom moom dafa ne gëmul lu ni mel parce que li nga xamante ne bi mooy déclaration patrimoine yi ñuy def ñi koy def ñëpp doon lu dul nasaxal xelu sénégalais kile moom loolu la gis Euh, yeneen commentaire mhm. beneen commentaire waaw kii moom euh, li mu wax moom waaw si Malick euh, dane def na rek lañ wax mais xamuñu ñaata la moom tamit dafa rejoindre ci commentaire bu njëkk bi alors ci ñàkk xam googu maam Khady am na ñu ne enfin liir nañ ko ci yenn site internet yi mhm. ñu ne fortune Idriss rek mën nañ ko estimer à plusieurs milliards am na ay kër ci Thiès am na ko foofule ci booru Mbour jëm Saly am na également suuf fii ci Ndakaaru te boo ko estimé c'est plusieurs milliards de francs CFA plusieurs milliards de en loolu la ñu wax ah. loolu la ñu wax euh, da am na sax xëy na dinañ ci ñëw ci yenn commentaires yi ñenn ñu ne euh, donc pourquoi ñu wax ne Idi li nga xam ne nii moo ko dugal si nguur Macky Sall mooy dafa ñàkkoon xaalis waaw donc euh, commentaire euh, kii Amariña moom euh, dane acte de bonne gouvernance moom loolu la gis mu ne loolu la euh, kii moom am na keneen kii itam dane ñaata la yor ci gafakaam kii ne man de ay mbiram ay wax si gàttal lépp ay ay la ginnaaw mm-hmm. donc kii làmp Bamba Seck moom dane cey suñu boroom <laughs> moo njaboot beneen commentaire am na sax waaw làmp lamp bamba seek waaw ñu jeexale kii dane euh, kii moom dane idi euh, lum la mënti wax ay Idrissa Seck la donc kii lii la mooy commentaire am Abou Ciss daal ne Ousseynou Gueye idi euh, du moroomu gune donc est-ce que duñ ko yemale foofu ñu yemale ko foofu di ko sant ko gërëm moom maam Khady Diéry Fall Sawru seen secrétaire général bu SAEMS maa ngi lay gërëm bu baax amoon mbégte di ànd ak yow ci l' édition du soir di gërëm Pape Modou ak euh, Serigne Saliou Bey ñu newoon ci caméra bi am di Sidibé moo newoon ci régie mbokki jërë ngeen jëf léegi-léegi le journal de 20